merci gàtt na mais il mu wax leen gàtt na mais si xol la jóge génn yéen agent santé yéen a tax ma jóg parce que bu dul woon yéen danaa xaar tuuti door a génn wax li may wax mais ni ngeen jógee ne da ngeen may boot rogganti ma yóbbu ma il faut ma jox ne leen waaw nangu naa bi yéen yéen Dakar est à l'arrêt da bëgg koo yëkki yóbbu vous comptez sur je suis prêt pour takk brassard bi ñu dem ñu dem oui ñu dem pour yëkkati Dakar ñu dem pour yëkkati Dakar ensemble et je souligne ensemble Dakar est une ville cosmopolite Dakar est la ville de toutes les synthèses Dakar dafa nekk ci xolu Sénégalais yi bon nag bu ngeen ne ma dañu lay yëkkati pour nga dem bouger loo li xamante ne tey dafa arrêté parce que ñi ko yor dañ ko téye di ko xeexee ñun ñu ko jël liggéey ko dama leen di wax waaw on va ensemble on va ensemble mais je vous dis que les échappés solitaires n'ont jamais gagné Les SAP solitaires n'ont jamais gagné. Ce sont les équipes qui ont toujours gagné. Nous allons ensemble en équipe avec une synthèse de toutes les forces qui sont derrière son excellence le président Macky pour lui donner une victoire écrasante ici à Dakar Avec les femmes avec les jeunes. Dakar sera une ville portée par une dynamique de jeunesse, mais portée par la générosité des femmes de Dakar. Vous pouvez compter sur moi pour cela. waa Cambérène pare nañ waa Ngor nañ waa Wakaam pare nañ waa Hann pare nañ waa Biscuiterie pare nañ waa Grand Dakar pare nañ waa Plateau pare nañ waa Médina pare nañ waa Sicap pare nañ waa Dieuppeul pare nañ waa HLM pare nañ waa Fann Point E Amitié nañ waa Parcelles Assainies pare nañ waa Mermoz Sacré-Cœur nañ waa Gorée pare nañ waa Yoff pare nañ waa Grand Fass Colobane Gueule Tapée bari nañ bon de Dakar bari na taxaw na pour am beneen taxawaay notre engagement pour Dakar est un engagement qui repose sur vision faire de Dakar l'une des plus belles villes d'Afrique et du monde. Faire en sorte que Dakar soit leader dans la compétition des territoires. Servir les Dakarois qui rêvent d'un cadre de vie agréable, qui rêvent d'une ville sécure avec des quartiers sûrs. Voilà notre engagement. faire de Dakar une ville sportive et culturelle, d'une dimension véritablement internationale. C'est le poète président Senghor qui parlait du grand rendez-vous du donner et de recevoir. Notre engagement, c'est de faire en sorte que Dakar soit à ce rendez-vous du donner et du recevoir et donner le meilleur ville intelligente, connectée au monde. Voilà notre vision pour Dakar. C'est le Dakar que nous voulons. Mais ville productive, porteur de croissance économique. C'est cela dont les jeunes de Dakar ont besoin pour participer à ce grand rendez-vous de Avec vous, les personnels de santé, je m'engage en tant que maire de la ville de Dakar de m'appuyer sur une dynamique forte pour transformer les structures de Dakar en structures véritablement efficaces au bonheur des patients, les Dakarois. Une ville moderne à visage humain. Voilà notre ambition pour notre ville. Ce Dakar que nous voulons Nous allons le construire avec les Dakaroises et les Dakarois. Voilà notre vision, voilà notre ambition. Nous attendons avec humilité, avec discipline, le verdict de notre coalition, la coalition Benno Bokyakar, et à partir de ce moment, comme un véritable capitaine d'équipe, nous allons nous lever pour mobiliser tous les Dakarois pour faire en sorte que cette ville soit une ville contributive et qui contribuent efficacement à l'émergence. territoire collectivité locale kenn du ko xeexee ñi ñu dénk dëkk bi juróomi at ñu jël ko toog si def ko semmiñ def ko arme di ko xeexee nguur gi loolu moo tax Dakar ñu ne Dakar est à ñu li ñu gëm mooy que ne une collectivité locale pour nga liggéey ko il faut nga am une vision il faut nga gëm ko gëm nañ ko avec l'appui et l'accompagnement de son excellence le président Macky Sall danañu def en sorte que bés bu ñuy cotiser à l'émergence parce que en réalité le Sénégal est une sommation de territoire bés bu Dakar di cotiser di contribuer à l'émergence on verra que c'est une contribution positive avec nous c'est très possible voilà à part Dakar ak soxla ce que je suis venu vous dire et je suis venu aujourd'hui à l'honneur et par respect et surtout par affection au personnel de santé je vous remercie